suna مدك أعجز الذي تفكرا أعمال يا خير البصير سكرا Down! waati gërëm suwaaw Serigne Fallou nee na inni adaytu li wajhi llaahi saa'irata aqiimi layla ma arju waaw waaw aqiimi سرورا لكل راحة yëkkati loolu ñu ñëw. jibril ni ko nu nuy bàllay sa dan nuy bàddoola te bay rek la dundee te lu nu lu nu noonu lu nawetoo bay rek bu tolloo ci am meññet rek yooyu ñuy wax dinaaw dugub yi lekk ko ba mu jeexaat mun leen bàyyi daal ngeen ci benn de mu ko waaw waaw génn góor bu sam xorom ni te kenn avocat ni ko necc ba du génn lañ fal sama am nangam nangam nangam nangam nangam ne tiim ñu ko waa ji bàyyi al bàyyi tool yi jàmbur yi waaye boobaa ak léegi kenn mënatul bañ a lekk ko loolu sama ma ko def li mu defar ci parcelle boo leen gisee loolu waral mbooloo nii waaye loolu bu teg lu dul ñaar waajur sëñ Abdou Fatah mii Ndiaye sëñ Ndiaye wax léegi li waral sa waajur wi gërëm la tubaab fukkaat la jooy dund ko jooju melokaan dund ci yow da parce que li waral li di di lii sëñ Fall jëmm jeet mu dimbali gars yi ci wërsëgam ci xaalisam ñi nga xamante ni bi ñu ngi yor ci beneen jikko sëñ bi defaraat leen ba ñu yor beneen jikko nii ànd koog ci sa maam ci dara ngay guddi gii. waaw noo ngi ñaanal ci lépp lu fa taal sa waajur bu baax bi. bàyyi kilifa moom si Fallou mooy sama. moo yor ko ci digal. ma kilifa soxna Maria. magal Cheikh Abdou Diouf Fata jar na ko. Cheikh Diouf Fata waaw ku sopp Seex Fallu waaw ku sopp Seex Fallu moom xéewal walla lor dëggu laa ku sopp Seex Fallu loxo ca kaw nu màggal Fallu loxo ca kaw nu màggal Fallu ana soppey Cheikh Diouf Fata ana soppey Cheikh Diouf Fata waaw ku sopp Seex Fallu Mbàkke ku sopp Seex Fallu Mbàkke ku sopp Seex Fallu jaarama kay toggi joxe rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen sama mbokki taay bi yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen sant te di gërëm day am mbégte lool ci jotaay bi di sant nag mbooleem magitaay bi nga xam ne ñu ci baas bi su ma waxee Cheikh Ibrahima Diagne mi ñëpp xam ko ci kër gi président Aliou xam ko ci kër gi dafa naa ne wax naa mbooleem taalibe yëpp di nuyu fédération saari xéne saari xaat bi daayira yi yëpp loolu daayira yi nekk ci biir yëpp di leen xamal ne waxtu yi xam na waaye nag faaw ñu jéem ci wax ci tuuti ci bisu tey bii ak jataay bi ak li waral bis bi yëpp li njëkk mooy xam ngeen bis bii kat bis la boo xam ne lii ñu ci ni tey muy fanaanee toog ci guddi gi di dégg ñuy waxtaan ak a jàng ay xasida ak di waxtaan ñu baax ñi ba fajal ngëneel ci nekk de ku ko xamoon lu la mën a fekk da ko bàyyi ngir fanaa dundal guddi gi ci lu mel nii ndax xam ngeen ne bis bii bu ñu wax waxtu julli ci bis bii la ko borom bi wàcce jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy li wax guddi gi rañaan gi kon bis la boo xam ne bii jullit a dañ koo war bi fàttali ko comme bis bii xam ngeen ni kon sunu waaj yi ci la ko sunu borom bi indi li ma waxoon ne yonente bi sallallahu alayhi wa dana lay rek mën a këpp loolu def naa histoire boobu ñëpp xam nañ kon sëñ Fallu yàlla daf koo gën ci ay gëneel yu bare bare bare ci foo ko xool rek yàlla defal na ko beral ko fa loxo loo xamante ne bii keneen am ko kuréel moom ci ab juddoom ci aw nasar muy ci askanam ci dundam ci taxawaayam ci liggéeyam ci nekkam lépp rek lu ci nekk rek suñu woon ak jagleel la ko ci defal kun waneen ni suñ fallu suñu borom yàgg na koo wuutali wuutale ak doomu aadama yi kon ku am sensu bokk ci ak njabootam te bokk ci ak njabootam mooy mooy mooy kat mooy ku ko bëgg rek ku ko bëgg rek ci njabootam bokk loolu sens bu rëy la ndax dafa am ñoo xam ne dañuy ay xej yi sunu borom bi tabaaraka wa xej gi nag mooy kan mooy loo xam ne borom su bëgg dara boo ko waxee sax soo ko bëggee sax mu def ko. su bañee dara soo ko bëggee sax mu bëgg ko su bëggee dara soo bañee dara su ko bëggee sax mu bañ ko loolu la wax xej moom la ñuy askanale rek Seydina Moussa alayhi salaatu wa salaam dañu xam ne mooy xej bi yàlla waaye Cheikh Mamadou Fadal it nañ koy wooyee loolu ndax loolu rek la ñu gis ci moom kon nag Sëñ Fallu toujours dañuy wax ne Sëñ Fallu bu ñuy waxtaan ak moom ci moom ñu ci bari ci karaama yi nga xamante ne bii moom la. doon def wala mu bokk ak ak cumpaan yi ñu bari ci la waxtaane te fekk na loolu ci lu tuuti la ci Sëñ Fallu ndax Sëñ Fallu ci li ñuy wax al insaan yi nit nekk ci moom muy koo xamante ne bii taxawaayam taxawaay bi ñu wax mooy diggante ci am fulla am aw fit am ngëm-ngëm am xel mu yaatu bu pare di visionnaire li tubaab di wax visionnaire di gisal ko sori yooyu li tubaab la arab wax lu lu spécial la maanaam lu te danaa wax ne bu Touba dee Touba Cheikh Maodo Faral lu naqaree wax la nag waaye mooy li ma résumé ko rek ndax Serigne Touba Xaadimal Muxtaar bi ñu koy indi Touba. 1927 wax nañ ne li fi nekkoon ci kër mosutoon fukk waaye ñaari kër lañ ci mënoon lañ ci mënoon a ràññee muy kër Daaru Xudoos bi nga xam mooy kër bu Serigne Touba kenn ki mooy kër kër Serigne Fall fi ñu gis si nekk kon xam ne ne Touba boobu kon kër yu bëri waaye li ci yéen mooy Serigne Fall ni mu fi nekkee ak Cheikh bu Moustapha magam ja ba Cheikh Moustapha jóge fii ñu fi nekkee ak ñu taxee Touba di Touba tey ak ñu taxawee Touba tey ak ñu valorisé Touba ci loolu lay digg ak yéen moo di ne ñëpp ku ne xam na ne te ñu bari xamuñu ko sax Serigne Fallou bi mu doonee Serigne Touba ci la tàmbali valoriser Touba defe naa ne sax am na waxtaan bu defoon fa ñu bari dégg nañu si bi mooy lan. mooy li nga xam ne doon na suñu bàyyi Touba ci la daay taxaw ndax it bi ñu nekkee daf koy yitaloon waaye bëgg ko woon a fakkasal moo tax dafa évangé wu woon boo déggee tur galas loolu moo ko waraloon dafa wan aw yoon boo ca amee mag am ca rak danga dama naan galas rek ndax bu ñuy wax mag kilifa gi la ñuy wax bu ñuy yónni yónni rakk ñu ngi sëñ Basiru loolu moo war a mbéy moo tax li ñu sëñ Moustapha ne rek daanaka mbir mi jii la nekkoon di di liggéey jàppale Cheikh Moustapha ci liggéey bi waaye bi nga xamante ni nag doon sëñ Touba sañ nag sañ sañ bu baax sañ ci dëkk bi nga xam ne nag dëkk bi sëñ Touba moom moom li tax ma ne la moo tax Touba di Touba ci la ko taxawal buñ nekk def mooy woote màggal bu sëñ Touba ji parce que booba xam na ne lay tax mu suqali dëkk bi bokk na ci mbokki taalibe bi fu mu ne ñu fekk suñu fii muy lool lañu wax loolu la ñuy wax aspect économique aspect religieux bi mooy la mooy li gënal sëñ Touba te mu xam sëñ Touba dimension bi koy fi mu toll moo tax mu ne fii Touba di defal sëñ Touba fii bisam bii ndax sëñ Touba loo koy defal da koy defal ci bisam moo mooy ëpp barke ci la tàmbali loolu muy 1947 doxal 1947 ba 52 daal ba Touba bi te booba Touba am ci yoon te Sénégal yoon yi dañ moo daal li sama yitte ju njëkk mooy mu dëkk bi am aw yoon fekk booba tëli bi nga xamante ne bii moo jógee Ndakaaru ci toon yoonu njëkk ba mi ngi yemoon Canaba suñ Fallu moo jëlee tëli bi Canaba indi ko Touba nga xam ne liggéey bi liggéey nañ ko lu mat juróom mi at muy ndax ci lañ indi tëli bi diggante Canaba Touba bu toll ci 117 kilomètres nga xam ne desaay rek Touba am nga xam ne njaareel sax Touba ko def amul tëli tëli bi jaaree moo tax mu jaar ko ñëw ñëw ñëw Touba te biir ci biir lépp ñu koy def boobu mi ngi liggéey jumaa ji bi mu defee loolu ba mu liggéey jumaa ji ba mille neuf liggéey jumaa ji ba liggéey ne te boobu benn doomu sëñ Touba amul kër Touba benn doomu sëñ Touba amutul kër Touba. moo wax leen tey li ma def exclusif gis nga kër Serigne Saliou bii sëñ ah, Fallou moo ko natt jox ko sëñ Saliou kër Serigne Abdou sëñ kër Serigne Abdou Lahad fekk kër Serigne Saliou bii Serigne Abdou Lahad ak sëñ Saliou moo ko natt nattu ko sëñ Moutoulah kër sëñ Abdoulaye borom dër bi sëñ Fallou moo ko natt jox ko sëñ Abdoulaye borom dër bi kër sëñ Basir sëñ Fallou moo ko natt jox ko sëñ sëñ ba kër sëñ Basir bi mooy kër sëñ Touba gi fi mu nekk nii sëñ Moussa Basir moo ko joxe addiye tuxoo tuxoo ko daar bi nag kër sëriñ Abdou Khadi moo nekkoon kër Mame Thierno ñu jël ko jox ko Serigne Fallou xam ne kër yooyu yëpp Serigne Fallou moo bu rëdd ku ci nekk mu woo la dem dëkkal fii te li ci yéene mooy gis nga bi bi ñuy dëkkal kër yi boo jumaa ji ñu ko liggéeyee dafa nekk penc mu yaatu moo xam ne bii ñu dëkkoon ci dëkk bi ñëpp dañ daan kër bi Serigne nga xam ne kër yi ñu sooy jumaa ji xam nga la te booba yéen a gisoon tey ku ne xam ne léegi penc Tuubaa bi ñu xate kon ci taxawaay yooyu la Serigne Fallou taxawloo nekkaloon ba Serigne Touba mu jóge ca mille neuf cent mille neuf cent soixante deux mu jëlee waat tëli bii nga xam te ni moo jëm jolof jolof muy tëli daara ba indi ko ñu liggéey def ñetti at mu jóge waat fa jël tëli bi nga xam te ni moo jóge Kébémer indi waat ko Touba muy mille neuf cent soixante quatre jàpp soixante trois jàpp soixante quatre pour gàttal bi Sëñ Fallu te boobu jamono jooju lu nekk nekk lu jafe naa leen nee naa leen courant courant bi nga xamante ni mooy tàkk ci Touba Sëñ Fallu Dakar la ko jëlee Dakar la ñuy jëlee directement indi ko Touba nga xam ne dëkk yi yëpp tey ci barke Sëñ Fall lañu amee courant tey bi ci jamono boobu te li foofu mooy gis nga yooyu yëpp doon def dëkkam bii di Ndindi mi ngi ko sànq ci 1913 Ndindi bii xam ngeen kay la aw yoon 2010 lay door am bi te bi El Hadj Baara moo ko fi def ñu xam ne loolu yëpp ñu koy diwaay Sëñ Tuubaa rek courant bi nga xam ne moo moo moo ñëw Ndindi wax nañ ne bi ñu def courant Ndakaaru ba indi ko Touba dafa des. ñu ne dëkk ban moo population ci wetu Touba ñu ne nit kon wane na moom Sëñ Touba rek ko ñoroon wane woon na liggéeyal Sëñ Touba rek loolu woon wane woon na ne Sëñ Touba rek ko ko ko jaraloon lépp loolu moo waral tey yii nga xam ne yàlla defal na ko tey ñëpp teg ci bët mu defal ko kon nag loolu liñ ci war a nekk nañu jàng Sëñ Fallu yi nga xam ne jikko woon nañu ci ay taxawaay ñu ñu ñu ko cay roy kon Sëñ Fallu jàpp naa ne lu ñu gis ci moom ci ay kemtaan rek wala lu ñu gis ci moom di mën a rek mën naa ne bu doonoon juróom dal nañ gisal ko ndax dafa jaar Serigne Touba foo ne ni kenn musu ko faa jaar yàlla teel koo yeeg Serigne yee koo xamante ni bii kenn yeewuñu ci noonu mu jëflante ak Serigne Touba jëflante yoo xamante ni bii kenn mos a jëflante moom jëflante yu toll te pourtant bii moo gën a jege Serigne Sall moo gën a jege Serigne ci ak mbokk waaye yëpp da koy jëloon ne ko fee tey moo war a tey jii lii mu am nii lépp ñu teg ci bët kon nag kooku bu yàlla boole nga bokk ci njabootam mbokk yi mooy bokk xam ne soppe nga ci mbokk yi nga bokk rek war ngay war nga war nga war nga góorgóorlu bu baax a baax